waxtaanee euh, soxna si bi ñu laatatee euh, Sonko ñu ma woon a waaxu dugg bëccëg ñëw dugg fii ndax mbedd yëpp ñu ngi leen barricade ñu ngi lakk ay oto jaambur ay kaar ay miskin di duggu université bii ñu lakk moom Sonko moo leen koy defaraatal te moo ko lakk loo ñu lakk ah waaw moom du ma yow yoruloo génneel enregistrement bi du ma wane maa ngi door jot almet gi nga xam ne. moom laay taalee réew mi du moo ko wax ci làmmiñu boppam. ah waxu ko. wax na ko léegi nag boo demee demal say archive. waxee ko comme ni ah, kay man de loolu laa dégg. parce que ñun déglu nañ boobu début à la fin déglu nga ko man ah, ni ah. bokkul ak ni ko waxee. ah man ni ko dégg da koy jubanti jubanti ko waxal ni ko waxee. non non waxal li wax. waaw li ñu dagg loolu la la jox. li ah, ñu dagg peut-être yow loolu nga am. man mais wax ji demeewul noonu. d'accord yow li ñu daggul nga am. xool moom man la wax. ci Macky Sall la ko doon wax non non non non non man maa la gën a dégg olof téeméeri yoon man bind naa ay livre ci olof. mënoo werante man ci langue olof. mais discours Sonko bi moom dégg naa ko. ok d'accord waaye dégg nga ko mais c'est olof mën naa des dama ne li ma wax li ma wax dafa ne man man daf ko adressé. na moom lay waxal à la première personne. ne man maa ngi door jot ci almet gi may taalee réew mi. loolu ñuy déglu mën nañ si. déedéet ma waxul ma ne boo ne mi ngi door jot almet gi muy taalee réew mi ñaari propos yi du ñu benn su ne yow noonu ngay liggéeyal euh, kii Sonko acca liggéey. non pas liggéeyal Sonko. Ah, déedéet ah, waaye déedéet dama ne taxaw bi nga taxawee sax daf lay génne ci journaliste. parce que tu es déjà partisan yaa ngi bëgg a défendre Sonko jëlal samay propos rek li ma wax moo ay propos ngi fi boo léegi ñaari propos yi nañ ko corrigenté. léegi nañ ko bàyyi ci ni mu ko déggee mu daal di koy développé noonu. Euh, boo dikkaatee si ba tey discours bi suñu président Macky Sall daal di wax euh, ci euh, appel à l' insurrection boobu noonu ñu daal di koy indi ab raison boo xamante ni moo tax ñu daal di dissoudre parti bi ban moo ci sa gis-gis. non man xam nga li ma ci xalaat waxoon naa ko ca palais ba ca ouverture kii. man wax naa ko wax naa ko ne si gëmmal dóor si xoolal dóor loolu dara du ma ci dindi. gëmmu dóor

nit ñi di dee di gaañu mu jël yoonu weli ngara muy def noonu ba fañ ko jàppee fii ci ndakaaru même chose ñu naan taal leen dóor leen def leen ñu def loolu ba nga xam ne li ci dee ci ay nit kenn xamul nu ñu toll dégg nga ba ñu doon waral loola ñu jàpp leen yéen ngeen bu ngeen leen def ay manifestant yéen xamu leen lan mooy manifestant violence bu amee rek manifestant amatul da nga ñoo dañu romb M comme manifestant dem ci V V double V rek moo fa te X Y Z ñoom dem nañ ba ci xalaal faa ngeen bëgg leen def ay manifestant ñoo bëgg a am am manifestant ñoo ko fen manifestant du yor dara ci loxoom buñ ko doon dóor sax mu toog ngi di ko dóor gis nañu fii manifestation Europe dañuy tëdd ci mbedd mi alkaati leen jéem a bu bu dee manifestant bu ne ñeenti alkaati wala juróom ñoo ko yëkkati affaire ba du mën a sori loolu mooy manifestant opinion am lay kii bind ko ci pancarte nekk ko pacifique waaye nañ taal dañ kër diw diw xam nañ këram diw tër kii nangam nangam diw yooyu fi lañ nekk ñëpp nekk à la défensive bañ fi jógee loolu loo ay jeex loolu ngeen bëgg a dellu si waat ah d'accord ok très bien ah, ba tey euh, ci parti yi nga xamante ne dissoudre nañ ko euh, bu fekkente ni euh, tas na ci noonu tamit dafa mel ni ñoom pare nañu pour amal benn plan B est-ce plan B boobu jàpp nga ne lu mën a jàll la. encore ati daanu nga ci même kàmb gi fële kër jàmbur la fële àll jàmbur ban affaire la waa nit yi yi di dogal B ou C ou sama yoon néew ci sama yoon néew ci man. nañ ma tegal ay candidat yu yoo xam ne man nañ leen a wateel ma xam ku ma ciy wateel boobaa sax man naa wax ñi nga xam ne bu ma waxee ñu ànd ca ne leen man de lii laa gis ne kii lañu war a wateel mais am nga candidat soxna si candidat amagul nu may amee candidat ça c'est de la logique pure olof ñu ne bala nga xam soo santu jarbaat sa jigéen sëyi xam nga loolu waaye sa jigéen sëyeegul nga bëgg a xam sa sant jarbaat mënoo ko xam mënumaa xam ban candidat lay faral fekk ay candidat ñu mën a wateel ni même mu amoon candidat koo xam ne bëgg naa mu kii te moom jàllul noo koy wateele kon am mënu ko ma am candidat bu leen yàkkamti bu leen bu leen fecc te tëgg guñ tëgg guñ kenn mën a fecc nañ seetaan borom ndënd yi bañ tëgg ñu door a fecc parrainage ngay xaar mu jàll ba noppi loolu mooy joxe candidat candidature bu valable yow lan ngay xaar yow pour candidat. mais dafa am ñoo xamante tey jii dañuy tabb nit non loolu candidat à la candidature la boobu man wax candidat à la candidature du ma ko wax mais le vrai candidat mooy ki passé parrainage dem cour suprême ñu approuvé candidature am kooku moo jar kooka mooy ki la la laaj ay mbiram mais néew ma du ma ci wax dama la jotagul xale bi nga xam ne dafa juddu bis bu ñu koy tuddu jotagul nga ne ma xale bu nu nu mu nu muy war a tudd xam nga loolu du laaj bàyyi ba bés ba rek da nga xam nu mu tudd bés bi nga xam ne ci li ñu xam candidat jotagul dégg nga soxna si. mais pour ci li ñuy waxtaanee mooy candidat la candidature moom moo man waxtaanee wu man waxtaanee man ay fait concret su fekkee ne waxtaanee comme ça rek euh, njur jural jàpp kooku ça ne marche pas avec moi. man li ma xam mooy diw mii diw ñii jàll nañ ku la ci gën a boo ma wax la ko carrément. d'accord xëy na sax bala ma ko laaj wax naa ko. d'accord hmm. euh, fan yii ñu gis président am euh, tukki bu mu doon amal ci New York. Hmm. ñu gis ay sénégalais yu bari yoo xam ne. ñu ngi yooxu ci fu mu dem di wane seen ñàkk ànd ak moom rawatina ñi nga xam ne ñoo di ay partisans wu Sonko. Hmm. même ci réew mi ay stade daanaka organisation def ko te duñ ko sonkorisé. Hmm. jafe lool. Hmm. Euh, phénomène boobu lan moo koy expliqué. loolu ay ndaga rek ndaga jàll na fi xam fekkee fekke woon ndaga de ndaga Ndiaye na Seynabou woy wu ñu la ñëpp di ko def rek fu nit tëggee làmb fi wax ñu ne ndaga Ndiaye Ali Seynabou jàll na am na waaw loolu la ci lañ toll rek mooy ndaga fi ñu ndaga ji toll rek. fecc ci la dafay am d'ailleurs sax boo demee ci yenn wàllu ci réew mi ñoom tout le temps dañuy woy ay woy kankorong ak ay kumpeeg yo di kii wër di fecc ak di def ay kii loolu Séné loolu c'est pas le sénégalais bi nga xam ne dafa ne dégg déggaaral toog di seet fu muy dugal kartam ak fu muy waxe ak fu mu dul waxe tey jii moo ma leen toppoon ci logique boobu dangeen di wax leen maanaam non non man Aly Ngouille ma gënal wala non non Amadou Dia Amadou Ba amul morom. wala diw man dama loolu yëfi kankorang la bu leen ma jaawale. ok phénomène boobu est-ce que jàpp ngeen neex a traversé ak élection ak campagne élection présidentielle. ah luy wane lu ko dindi di fi. lu dindi loolu maanaam luy din luy wane ne euh, élection yi du am fa mu war a amee na mu war a amee new fi gisagu ma de xëy na yow gis nga ko waaye man gisuma man de li ma gis mooy jàmm ju ne ñooy macha allah joo xam ne bu wootee jotee ñu wote wote wote bu ne ñooy buñ toogee ba heure ba heure ba ca ngoon ñëpp xam résultat bi